Euh, Père Palla maa ngi lay nuyu. Euh, démb maa lay fay. Euh, ñu bëggoon xam sababu daje bi ndax gis nañ président démb dalal na ñi nga xamante ne ñooy promoteurs yi barki démb mu dalal ménageurs yi tey mu dalal ñi nga xamante ne ñoo yor écurie école de lutte li ngeen daje jot a tënk ci yéen en tant que ménageur lan la woon. waa li ñu jot a tënk mooy lu yokk làmb rek lépp luy yàq ci làmb ñu dindi ko lu koy defar ñu def ñu dugg ci ménageurs yi waxtaan nañu. ménager amul problème confiance rek la jàppal ma jàpp naa bàyyil bàyyi naa lépp luy yokk mbër ci lay dox luy wàññi mbër àndu ci su mbër bëree ménager kontaan na bu mbër bëreewul ménager du kontaan kon àndandoog mbër yi ak président écurie yi liggéey ñun loolu moo ñu soxal ñun ménager yi. ñu ci bari dañu naan entente bi war ci diggante mbër mi ak ménageur bi dafay des parce que ménageur bi lu ci bari ci texte yi euh, da koy maîtriser te du ko xamal lii di mbëram. ba waral wax rek champion yi yor génne leen bari na te kenn ku ci nekk liñ la war a xamal ñi ngi la koy xamal ñii doog a ñëw te xamuñu lu xew ñoo indi coow li waaye mbër yu mag yi xam nañ seen digganteek ak yi ban rôle lañ ciy doxal.